Euh, salaamaaleykum salaamaaleykum Aba tey ñu ngi la fekk fii ci Chikori gannaaw bañ la gisee fan yii yëpp nga def màjjaal Euh, dugg mbedd Ndakaar yi seeti ay nit pour rek màggalu euh, Serigne Touba gi fii ci Chikor ak borom daaru euh, léegi nan nga gisee màggal gi borom daaru wax na te jox na nit ñi rendez-vous ngoon. a ah, ñuy sant rek xam nga ñun amuñu lu fii amuñu ko ëpp borom daaru ñun ñëpp xam nañ ñu ak sëriñ bi mu ñuy dimbali yàgg ñoo dimbali ba tey mu ñuy dimbali donc tey ñun ëpp na fukki at bu màggal amee bu daaru di Sikori donc ñun màggal daaru màggal Touba ak gàmmoog yëpp fi nañ ko defee parce que ñun fi nañu bokk fii mooy sunu kër donc bu buñ fi ñëwee tey dafa nekk lu war wër nañ nag fu nekk ma jàll gaa yëpp mën cee jàpp ndax ñun xam nga sëriñ bi dafa ni nañ ko ñëw sant la yàlla donc euh, dem na ñëw indi ndam ndam li di ndamu lislaam ndamal der bu ñuul ndamal képp kuy bañ euh, ndamal ñu am fit ñi ñu am jom ñi gëm yàlla ñi donc bu ñëwee ne na nañu ko wuy si ku amul fit mënoo wuy si ku ak ku gëmul yàlla mënoo wuy si ku ko wóolul mënoo wuy si donc ñun bu ñu ñëwee c'est parce que ñun tamit dañu cee bokk ñëw ma bëgg nag ñëpp yëg seen bopp dugg ci kër yi dugg ci koñ yi taxaw ci tali bi oto yi di romb ñëpp mën cee barkeelu ndax day bis boo xam ne lu ci waay def rek ren di déwén da nga ciy gis ay yokkute yu waaw waaw avant ñu gis ni sa tolluwaay ci réew mi malgré ça nga nangu def loolu lu waral loolu. waaw man dama toll nen man tollu ma nen man animateur rek la ba pare man balaa may nekk animateur lii laa nekkoon euh, man bi may am 11 ans lañ ma jox borom daaru Sénat Ousmane Diouf xaw ma anamu yëmbal laa dëkk euh, dem ci Sénat Ousmane mu boole maag borom daaru man bi may ñëw ci borom daaru dama doon uuf donc ma jugee yëmbal dem HLM taxu fa fekk fa beneen ëxlu bu ñuy wax ëxlu Mame Marème Seye ñu gën tàggat ci borom daaru donc man borom daaru laa xam bi may ximmeliku laa xam borom daaru donc ñi lay soog a xam ni dañuy yaakaar ni barki démb nga dugg ci sëriñ beeg mais ñun bi ñu amee 11 la ñu dugg ci sëriñ bi donc loolu lu yàgg la donc ñu koy sante yàlla yàlla mi ñu jël boole ñu ci njabootu borom daaru moom rek lañu koy sante bu baax. Euh, dégg nañ ko mu def discours bu am solo jëmale ko ci ndaw ñi jëmale ko ci ñëpp ñu fi ñëw ak ñi ñëwul sax euh, nan nga gisee discours borom daaru. waaw mooy euh, comme ni mu ko tàmmee def. borom daaru ñëpp xam nañ ko li mu siq ak waa réew mi surtout ndaw ñi nga xam ni ñoo ne ci réew mi moom boo xoolee waxtaanam yëpp ci xale yi la jëm waxtaanam yëpp day sensibiliser xale yi da leen conseiller waaye dafay jug waxtaan ak xale yi donc moom borom daaru moom mooy sëriñu xale yi borom daaru xale yee ko bëggal seen bopp donc bu waxee pour xale yi xool na fi réew mi toll xool na li xew ci réew mi xam na li xew ci réew mi donc tey borom daaru bu bàyyee lépp di ñëw fii bëgg ñun ñu koy fekk si fii dafa ñoo bëgg a dimbali rek donc borom daaru bu waxatee xale yi dafa jël buum daal di koy delloo ca mboy mboy ga parce que yàgg naa wax ak xale yi waaw ngi lay sant Aba ñu ngi lay sant bu baax maa ngi leen di bégee bu baax a baax baax